Euh, moi je vais juste euh, m'apesantir sur euh, trois aspects qui me semblent importants bu sortie Fonds monétaire international avec interprétation de nga xam aussi on va revenir sur les chiffres notamment les chiffres sur la dette publique Je vais apporter un éclairage clair et enfin je un peu sur le projet avec ses insuffisances je njëkk bi sur le rapport du fonds monétaire international li ñu njëkk c'est yéen ngeen mën ko lire ci nga xam communiqué fonds monétaire international mooy amul Ben yoon FMI a mentionné la vision 2050. mille cela montre simplement que FMI ne prend même pas au sérieux le travail des gens qui sont à la tête de ce pays Tout tudduñu sax ay Sénégal vision 2050 alors que dans tous les documents précédents à chaque fois que le communiqué du FMI nous ci doon toujours muy faire référence au plan Sénégal émergent lolo, war na aux sénégalais de xam ne amul benn borom xam-xam bu am xam-xam bu jox crédit li ñu bind ne Sénégal 2035 Benen bi FMI noir sur blanc il écrit que le déficit actuel est à 7,5

mu ngi premier ministre comment on fait une gestion administrative ndax FMI bi nga xam ne moo États-Unis ba moi je préfère m'en limiter aux chiffres officiels en attendant Cour des comptes mun a certifier li ngeen bind je pense que premier ministre moo waroon jëkk def donc FMI jàngal na ko nu ñuy gérer une administration Benen, le Fonds monétaire international moo ñu informé ci communiqué que Sénégal a des ay moyens variés de recettes malgré tout le matraquage fiscal malgré tout le banditisme à la limite fiscale bi nga noté est-ce que sénégalais ont xam nañu Sénégal dafa am ay moyens variés fiscale Nous seen documents documents, ko liree da nga que à fin juin ils étaient à 400 milliards de francs CFA de moyens variés de recettes maanaam li dit que nattaloon ne moom ngeen war am recouvrement malgré tout, malgré le xëtër malgré le bi malgré li ñuy chaque jour nous dégg ñu naan ñu ngi sonal nit ci ay impôts manqué nañu 400 milliards ci digënté janvier ak mois de juin tay nak FMI mu ngi alerté ci moyen bari yoy ñu ngi leen di fin juin bu ñu avez 400 milliards tay ji nga xam ñu fin septembre 3 mois après ñaata lañu am est-ce que 500 milliards est-ce que 600 milliards est-ce que 700 milliards est-ce que 800 milliards est-ce que ça? du 1000 milliards en tout cas FMI bu ñuy alerté ci moyen moins loolu c'est noir sur blanc FMI moo ko bind ñoom bëgguñu si wax mais soo liree da ngay gis FMI mu ne la en tout cas nous sommes très préoccupés par rapport à la tenue des finances publiques parce que simplement il y a une moyenne-value de recette boo xam ne jéggi na doyo maa ngi leen di yëgal nag ne à fin juin ci seen document yu disponible on était à 300 milliards ñun ñëpp nañu xaarandoo document de programmation budgétaire bi nga xam ne moom la ñuy publier chaque fois ñu ngi koy xaar ngeen lire ko ngeen xool ñaata moyenne-value la ñu am mais man jottu naa ku def 400 milliards fin juin fin septembre on ma da 700 ou 800 milliards loolu musiba la beneen bi FMI wax na ko dette bi baax na ndax président Macky Sall dette ko permettre tay mu def infrastructure bu melni Dakar Arena bi nga xamné mom lañu la dajalo ñom pour yakkat Sénégal fofu la ñu nar dajalé xaliss pour yakkat Sénégal loolu rek déjà wane na ne président Macky Sall li fi liggéey ci dette lu am solo la bi FMI mu ngi que le pouvoir en place tant que monsieur le président Abdou Mbow war nañu les subventions et les exonérations fiscales loolu que moo le ko wax ah. nee le Sénégal war nañu xoolaat may yëgal le depuis 2014 chaque fois le FMI day ñëw ci mais le Sénégal a été toujours droit dans ses bottes il n'a jamais obtempéré face aux injonctions du FMI Nous lu pouvons nous ñu wax ndax FMI am na ci document bi boo xam ne nee na moom sax il est rassuré par rapport à la disponibilité des nouvelles autorités par rapport à certaines mesures yoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne ay mesures yu ñu war a def la y compris la remise en cause des subventions ma yëgal ne subvention yooyu président Macky Sall defoon moo ñu permettre ñu am prix de l' essence boo xam ne su ko président defuloon day dem ba 1200 francs gasoil bi su président defuloon subvention tey prix bi mu ngi ci 1000 francs bu tey gaz sous président de la subvention t'as mu ngi 4000 francs ma les di yëgal donc Sénégalais que courant gaz jamono yi di ñëw su ils ont obtempéré face aux injonctions du FMI pour un régime qui se dit souverainiste pour un régime qui a toujours dit qu'il ne va jamais subir le dictat des gestions du brut donc remise en cause de tout ce qu'ils nous ont promis Nous, on ñuy xaar si déclaration nous sommes un pays souverain comme le ñu FMI hey ñun nous sommes un pays qui xam ne kenn duñu dicté dara Nous sommes suñu toogee dégg effet bi naan ci communiqué ñu ngi ci le fait que nouvelle autorité yi nous ngi ñu naan disponible nañu pour les leen jox comme pour mu ne régler problème bi nous pare nañ pour def ko man bëgg nous sommes ñu wax ñun sénégalais a mesure dañu d'accord d'accord ak FMI pour def ko ndax su fait ne c'est la remise en cause des subventions c'est très mauvais pour les populations su fait que c'est la remise en cause de certaines exonérations fiscales

parce que économiste là, xam naa bu baax limay wax loolu ma wax ci moy ñom dañu waxoon né dafa am dette bo xamné état bi dafa ko comptabiliser daf ko dafa ko contracté te comptabiliser wuñ ko fenn du loolu dañoo waxoon FMI mo ñu yëgal né dette boobu lu ñuy woyé dette extérieure bi ci bokk ak dette yo xamné c'est contracté auprès des banques locales lolu yéen ko lire ci rapport FMI donc FMI mo ñu yëgal ñoom yëgaluñu mais garaawul nañu yam ci ñu FMI wax parlons de la dette extérieure je le dis de manière claire dette extérieure pour nga def ko pour nga mën dette extérieure il faut que nga am l'avis juridique de la cour suprême So bëggee leb da ngay bind cour suprême ne ko damaa bëgg nga jox ma avis ci leb La cour suprême xool est-ce que bor boobu mu ngi ci loi de finance est-ce que bor boobu voté nañ ko assemblée nationale pour émettre un avis juridique ñu ngi leen di laaj nee nañu dañoo bor bor boo xam ne mosuñu ko comptabiliser fenn ñu ngi leen di laaj. Quelle a été la position de la Cour suprême La Cour suprême a-t-elle été complice de l'État, oui ou non C'est un élément important. Nous interpellons la Cour suprême pour qu'il donne sa position. Parce que nous avons def des finances cour suprême nous interpellé pour a-t-il été complice oui ou non nous interpellons la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCEAO démb dégg naa ministre bi ñu laaj ko ne ko ministre euh, Amidou Lo moo wax démb ci rajo bi sen confrère seen consoeur bi nek astu Dione moko invité ne ko dégg nañ ñu ne bor mënul am Sénégal mu jógee extérieur dugg Sénégal té banque centrale du ko yëg mu tontu tontu bu ñak solo ne leen waaw déedéet affaireu tête mom état bi moo jox jox ñu chiffres yi. Lo fait aujourd'hui de la BCEAO une caisse de comptabilité de fait c'est faux et je vous explique pourquoi c'est faux Mon moo ñu belle est statistique lay fournir Le meilleur wax c'est l'économie. Mon moo ñu belle est statistique lay fournir état bi a les statistiques sur la balance de paiement lan balance de paiement Soyez def première année sciences économiques on te définit la balance de paiement comme étant le document qui retrace l'ensemble des opérations financières entre le Sénégal et le reste du monde Sénégal su y dafa la France ou les États-Unis dette l'extérieur. bi Billahi, wallahi wa taalaahi day jaar BCEAO BCEAO retracé ko ñoom ñoo ñuy fournir la balance de paiement question bi ma koy poser mo Aminou Lo qu'il nous dise devant les Sénégalais et devant ses collègues et devant ses anciens agents de la BCEAO qu'il nous regarde en face et qu'il nous dit clairement est-ce que bor mun na jógee extérieur ñëw Sénégal te du jaar banque centrale donc ban bor la wax ban bor mo jógee Sénégal ñëw fi ñu jàngati ko te kan comptabilisé wu alors que bar bu jógee Sénégal day jaar banque centrale donc lu jàpp banque centrale banque centrale def ko ci balance de paiement fournir ko loolu yaakaar naa il faut ñu waxtaan beneen bi mooy gis nga statistique dette publique dafa lié ak balance de paiement statistique dette publique dafa lié ak banque centrale ak ak balance de paiement tey Sénégal bépp xaalis bu jóge à l'étranger di dugg ci état Sénégal compte état Sénégal dafay jaar BCAO. BCEAO comptabilité ko ne ko yéen waa Sénégal jot ngeen fi 1000 milliards bu jógee France loolu pour lan la ñu ne ko det la mu ne det nan nit ñi sax mais man état la ñu wax mu ne det la mu ne waa defe naa ko det la te sax avant sax ñuy det dañuy woo ko e CAO e te CAO dafay bokk ci ñi nga xam ne dañuy xelal Sénégal ci wàllu endettement ndax jour jouru paiement su jotee Sénégal ci ay devises lay fay te devises ya Sénégal moomu ko BCEAO moo ko moom donc man Hamidou Lo ñu ngi koy interpréter et on le dit wax moom waxuñu ko sax mu débat ak ñun mais qu'il nous regarde juste en face et qu'il nous dit est-ce que bon, nous nga ko lebee à l'étranger est-ce que bon, nous nga ko fay à l'étranger te BCEAO du ko donc ay fen la ñu wax ay kàcc la ñu wax la musique. wax dara à moins à moins à moins à moins qu'ils nous disent que Sénégal bu muy leb dafa France wala ba États-Unis ñu jël xaalis dugal ko ci ay caisse dugal ko ci ay avion ay néeg bi Malick euh, euh, escorté xaalis bi mu dem ba bureau ministre des finances ñu teg ko fa di ko consommer. waaye même su fekkee loolu dafa am waaye jour paiement su jotee nu Sénégal def jour paiement su jotee est-ce que Sénégal dañu daan xaalis bi defar ko ci caisse mu jaar frontières yi et alors que on emprunte à des banques sérieuses ay banques internationalement reconnues donc dette extérieure bi nañuy wax ban banque lañ ko leb banque boo xam ne xamuñu fan la jógee ak nan la ñëw donc loolu ay gàcce la c'est faux le ñuy wax ci tet bi dara amu ci du xam-xam tous à moins qu'on dise les mots. wax sànq non non dès bi ñuy wax jaarul banque centrale jaarul fenn ci ay kees la jaar bu dugg Sénégal de loolu xam ngeen ne donc moi je les défie encore une fois tout ce qu'ils ont raconté sur la dette c'est faux amul ay mensonge la loolu bëgg wax pour me clair par rapport aux chiffres sur la dette publique maintenant euh, sur le projet foofu soit terminer pour nous voir un peu et, et je vous dis pour ceux qui s'intéressent sur ces questions là soo leen demee Google wala site PCAO da ngeen fekk lu ñuy la balance de paiement global net xam nga yéen a ngi fàttali Idriss Seck bi président Macky Sall ne jamono boobu ñu ne kees bi dara dafa ne dem leen ci y avait ce qu'on avait appelé la position nette du gouvernement ce débat là aujourd'hui se repose allez à la balance de paiement et regardez une ligne qui s'appelle position extérieure globale net lépp lu Sénégal musa leb da nga ko fa fekk ci année yi qu'on nous dise maintenant est-ce que la PCAO a été complice ou non Parce que la PCAO aussi, elle fait ce qu'on appelle la surveillance multilatérale. Est-ce que cette BCAO, est une fonction D'ailleurs, day toog rek Sénégal na man 1000 francs moins sama dette Togo na pas man 2000 moins sama dette Côte d'Ivoire na pas man 3000 moins sama dette mu boole ko rek ne waaw mu ngi noonu xanaa BCAO amul ay techniciens yu mun a xool xam nga lu le def.